nga xam ne lépp loo xam ne yàlla dogal na ko ñoom ñoo koy wàccee ci kaw suuf si di ko xamal nit ñi de ci seen mbir yi dund ak seen mbir yi dunduwaay seen yépp mu ne lu yàlla dooñ gëñ ci loolu nag lu gëñ yooyu yàlla di gëñ yépp kuy gëñ dafa war a am lu tax ngay gëñ waaye bu jumla ji ñëwee da ngay dégg ne daf ñoo wax ne rek yow ma tarjufu bés ba dana rëng-rëngal nit ña ca waxtu wa nga xamee ne israfil mu ngi wol ci bëfte ba rëng-rëng googu nit ñi di def loolu la wax de waaye gannaaw wax na yow ma yow ma bi dañoo dégg ne dafa am lum lum lum lëng loolu mu lëng ci biiram mooy ne zarf la zarf boo ko déggee dafa am lu nekk ci biiram gannaaw wax ne yow ma nag mooy yow ma na bés bañ bañ leen di dekkal keroog loolu mooy xew de mu ne yow ma tarjufu bés ba dañ leen di dekkal da ngeen tiit tiitaange yoo xam ne rëng-rëng yoo xam ne bu israfil ta tar tarjufu dana rëng-rëngal nit ñi raajifatu wala nag israfil ba ca ca ca bufta ba waxtu woo xamee ne israil israfil ma nga téye bufta ba ba wol wooli nam mu njëkk nit ñëpp dal di dee su ko defee wooli nam ñaareel ba nag ci la wooli na wooli wooli na wooli nam ñaareel ba ci la nit ñi di dekki wooli nam ñetteel bi nag ci la nit ñëpp di daw jëm ca xalaaxira de ca dajab yàlla ba tatba'uhaa dana topp ko arraadifatu woli dem ñaareel bi de ñaari wol la israfil di wol bu ko wolee àddina bi yëpp tukki bu wole teeweneen yoon nag nit ñëpp a ngi dekki tukki ci seeni bàmmeel jëm ca suuf sa nga xam ne ca la ñuy dajeek yàlla de waxtu woo xam ne dañuy dajeek yàlla waxtu woowu la doomu aadama di tiit tiitaange yoo xam ne xolam ak yaramam lu nekk ci moom rek dafay rëng-rëngi ndax tiitaange bés boobu de euh, ndax doomu aadama ci kaw suuf xéefar rawatina liñ mën di am weddi rek lañ mën di am yàlla dinaa leen dekkal ñu ne ko du dëgg ñun buñ dee duñ dekki buñ dee dañuy fënax rek jeex nañ amul dara fu ñuy jaar pour dekki de lu leen yàlla dinaa leen dekkal danaa leen xisaab ñu weddi ko bés boo xamee ne nag dem nañ ba loolu nga xam ne ñu ngi doon weddi ñi nga jàkkaarlook moom te lu métti lay doon jàng nañ démb ci suuratu euh, euh, mayeta mu wax ñu ne bés penc dana am bés penc dana am waaye nu muy amee waxuñu ko daf ñoo wax na rek inna yowmal fasli kaana miqaatan bés ba nga xam ne ci la yàlla di fasale nit ñi bés la boo xam ne yàlla defal na ko waxtu woo xam ne dana jot waaye nag bés boobu na muy amee waxuñu ko saar woowu waxuñu ko saar wii nag moom moo ñu ko wax de mooy nim ñu ko waxee mooy lan mu ne yow ma tarjufu bés ba dana rëng-rëngal arraajifatu aji rëng-rëngal ja te mooy wol bi nga xam ne israfil mu ngi koy woon wof ca bëfta ba nit bufta ba nit ñëpp dañuy tiit ñëpp àddina bi yëpp rëng-rëng rëng rëng rëng rëng rëng rëng su ko defee tiitaange jooju yuñ ci nekkee nag àddina dal di ñoom ñëpp ñu dal di dee jeex na su ko defee nag beneen wol bi dal di ñëw wolu ñaareel bi nag ci la jullit ñëpp mbindeef yëpp di dekkee de bu ko defee bu ñu dekkee nag ñënga nga dekkee jàqare ak tiit ak jaaxle ndax loolu ñu doon wax naan amut yëpp du nekk mu ngi nii jàkkaarloo la ñoo moom de bés boobu nag keroog mu ne quluubun ay xol yow ma keroog bésab keroog waajifatun aji jàq lañu keroog de xol yëpp dañuy jàq de waa ay aji aji yëngatu lañu xol yëpp ñu nga tiit di yëngatu di jaaxle de ab absaaruha ay bët seen xaashaatun aji torox la mu de su ko defee nag bési keroog xéefar yi doon weddi yépp ña nga fees ak jàqare ña nga fees ak tiit seen bët yaa ngi torox ndax lan li leen toroxloo mooy yàlla defal na leen taraanga bu nekk ci àddina ne leen dana dangeen ngeen dee te dina leen dekkal te da ngeen taseeg man te ku nekk danaa ko fay li nga xam ne moom la doon jëf ñu ne ah yonentu dafay caaxaan rek loolu du dëgg su fekkoon ne loolu am na yasalunaka ani saati ayyaana saa bés penc bi ngay wax kañ lay am su fekkee dëgg la na ñëw na ñëw léegi waaye wa yasta'jiluunaka bil azaabi loolu yëpp dañu koy wax ngir weddi ne bés penc amul muñ demee nag ba jàkkaarloog bés penc danañu fàttaliku nag ba leen yàlla daan wax ci àddina ne leen ragal leen bés bii su ko defee nag gannaaw bés boobu ñu doon weddi ñu ngi nii jàkkaarloog moom luy xew nag mooy dañuy rus a rus a am kersa tiita tiita tiit ba nga xam ne seen bët yi génn torox ndax ñu ngi taxaw ci kanam buur boo xam ne nañu ko daan weddi te buur boo xam ne nag buur bu mbëru kenn mënalu ko dara yaquluuna danañu wax nag ñoom xeefar yi balaa bés booboo ñëw bi nekk ca àddina ay naa naka ndax ñun la mar na ñu delloo lañu ñu fil xaafirati jëm ca toos ndax ñu ñii moos mooy yonentu moos li ngay wax dégg la ñu ñii moos bu ñu dee dinañ dekki ñu delloo ñu ca ca toos ca tàmbali mbaay ba fañ jóge woon ñu delluwaat fa ndax loolu mën naa am toos mooy la fa nga cosaanoo woon nekk fa mu ne ndax yaakaar mu nañ ne danañ dellu fañ cosaanoo woon nekkaat fa ba pare jógewaat fa di ñëwaat waaye loolu mënta am yonent loolu mënta nekk du dëgg de ndax muñ su fekkee loolu am na ne danañ de danañ dellu ca toos ah gannaaw buñ nekkee isa kunna gannaaw buñ nekk isa kunna gannaaw bu nekkee isaaban di ay yax naxi resen yu daway fënax bu ñu demee ba nekk ay yax yu fënax danañu dellooxaat moos ñu mel nañ meloon waaye loolu mënta am yonent loolu mu yox du dégg mënta nekk de xaalu ñu ne ñoom xéefar yi ba tey tilka googuleeg dekki isen boobalee ñuy dekkee neem wér na neen dekki xam na karatun ak dellu la xaasiratun gu daa aji perte la de su fekkee delloo googu di yonent wax sax ne am na dëgg la ne danañ dee danañ dekki danañ dellu àllaaxira su fekkee loolu dëgg la bon itam loolu dëgg gu perte bon itam loolu lu perte la de ndax bu ñu delloo àllaaxira duñ delloo ak ñii ñu meloon gannaaw delloo ak ñu meloon bon wàññeeku nañ bon gannaaw wàññeeku nañ bon perte la dara nekkul ci loo xam ne dana dolli yàlla dara ci taranga wala dara su fekkee dellu nañ daal dañuy delloo ak manki ak perte waaye nag fekk loolu du perte de perte mooy fañ koy amee ni ñu yàlla wax ne loolu mooy perte ne euh, bés ba nga xamee ne ci la ñuy perte seen doom perte seen al perte seen bopp waxtu woowu mooy perte de waaye da ngeen dellu te da ngeen mat doon ni ngeen doonoon dara du manqué ci yéen du perte ni ngeen meloon rek ci àddina bu ngeen di dellu itam noonu ngeen di delloo de fay innamaa hiya naka moom dellu googu zajratun benn wolin la waaxidatun bu de benn rek boo xam ne israfil moo koy wol yàlla dekkal leen israfil mooy def ëf ci bëfta bi rek yéen ñëpp ngeen dekki mel na ngeen meloon dara du manqué ci yéen ni ngeen meloon yëpp ni ngeen meloon ba ngeen di nekk ca aljan ca àddina noonu ngeen di ñëwaatee ci man de bu defee nag wol boobu fay daa xam te la fekk hum ñoom bi saahirati aji nekk lañu ca saahira mooy suuf si nga xam ne ci la yàlla di dajeeg jaam yi di leen xisaab nee nañ suuf su weex tàll la suuf soo xam ne mu ngi bees tàq mu ngi door a jóg jóge ci yàlla ca la yàlla di penceeg jaamam yi de ah, ah, loolu mooy li nga xam ne moo aju ci bés penceeg tiitaage yee ca nekk ak métit yi ñi ko doon weddi ci seeni xel ndax doomu aadama xelam rek lay natte xelam la am xelam lay natte lépp loo xam ne dëppoo na ak xelam loolu moom jub na lépp loo xam ne dëppoowut ak xelam loolu doomu aadama mënu koo nangu doomu aadama mënta nangu ci xelam kese kese ne nit ki dee fënax am ay junne junne ak ci suuf dana dekkiwaat mel na meloon loolu <coughs> xelu doomu aadama kese mënu koo nangu waaye xel mi koy nangu nag mooy xel moo xam ne nangul na yàlla ne yàlla mi ma wax ne moo ma amaloon te boobu doowuma dara ci kun fa yakun rek la ma amalee yàlla moom bu ma waxee ne gannaaw boo amee ba dee dinaa la amalaat loolu ku nekk xel mu nekk mën na koo nangu xel mu nekk mën na koo dégg su fekkee xel mu nar a jubal la xel mu nar te jubal nag moom lëndëm lu mu gën a lëndëmee gën a jafee rek noonu lay waxee nit ñi de yàlla mënta dekkal nit ñi ndax bu dekkee itam du nekk ñu mat ndax nu yàlla di dekk nu nu ki nu nit ki nit ki ni muy dee dekkee ko <coughs> ñoom am na nu ko gisee ñu ne <coughs> doomu bu dee bañ suul ko place bañ ko suul <coughs> luy dund mën nafaa sax garab walla lu ñuy lekk mën na faa sax su ko defee mën nañ fa bay ay tool lu nit ñi di dundee bi ci génnee wala lu njaaxal yi di dundee mën na cee génne su ko defee buñ jëlee lekk ko bon lekkaale nañ nit kooka nit kooka ñu lekkaale mooy soppeeku ci ñoom nekk mën yu beneen jigéen jur ko rek mu nekkaan beneen nit wala beneen wu ah, beneen beneen njaaxal lu jur ko rek mu nekk njaaxal la ñu ne loolu mooy dekki dee nga suul nga soppeeku nga ñam ñam woowu nit ñi lekk nañ ko wala njaaxal lii ba pare doom juddoo ci rek booba loolu rek mooy dekki waaye su fekkee loolu mooy dekki bu boobaa la doomu adama di door a nag ndax bu boobaa kay dekki kan la ndax nit kañ njëkk suul mooy dekki wala nit ku bees kii mooy dekki su ko defee bon loolu xel mënu ko yàpp de bon nag di dekki daal ki yàlla wax ne mooy dekki yow miy suul rek yow la yàlla di dekkal da nga dekki de waaye loolu yëpp ay xisaabi xel rek la xeli doomu adama nag ubbeeku na lu ko neex mën na koo xelaat waaye mënta xalaat nag ba soppi tërali yàlla yi ne nii lii yàlla tëral mën nañ koo dindi loolu mënuñ koo dindi de waaye nag bu leen neexee ñu xalaat bu leen neexee ñu wax bu leen neexee ñu tëral yàlla may na leen ko wax leen lu leen neex def leen lu leen neex waaye bés a ngi ñëw danaa taseeg yéen bu bés boobu ñëwee nag yàlla taseeg jaam yi ku ci nekk nag lépp loo xam ne dawoon dawoon na ci sa dund bi ngay dund ci àddina lépp nga jàkkaarloog moom mu taxaw di wax ak yow maa li haazal kitaabi laa yugaadiru saxiiratan wala kabiratan illaa axsaaha yëpp a ngi nii yaa ngi koy gis ni nga daan def daan ko nëbb sa moromi mindeef yi tey mi ngi nii ñëpp a ngi jàkkaarloog moom de mu ne bés boobu dana ñëw te bés boobu yàlla dina ci jaam ak dana ci dana ci jàkkaarloog jaam yi de su ko defee nag boo xamee ne yàlla dajale na mindeef yëpp ca bala boobu ñu wax saahira bu ko defee yàlla ne malaaka nañ dem indil ko jahannama mu lakkal ko ñii ñii ñëpp moo leen bind defal leen taranga waaye ñoom ñëpp dañu ko weddi mala eh, malaaka yi daal di dem indi jahannama ñu ne juróom ñaar fukki malaaka ñoo dem jëli ko takk ko ci ay ceen indi mu mel ni benn xalu xaj bu ndaw su ko defee bu ñëwee yàlla ne jahannama lakkal ma ñii ñëpp su ko defee jahannama ne fi di di di firéeku génn ñetti làmmeñ di génn safara rek tuur ko ci kaw nit ñi nit ñaa ngay daw nag seet fu ñuy sowee ji nañ dem ca aadama mooy bàyyi mindeef yi nañ dem ca ibrahima nafsi nafsi ñoom ñëpp ñuy daw daw daw daw daw ut fuñ làqu ut fuñ làqu ba amuñ fuñ làqu ba sës ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ne ko yonente bi jógal yee xay xam na jibril a ngi nii malaaka yaa ngi nii jahannamaa ngi nii di lakk nit ñëpp yonente daal di jóg na ma ñeme naa lakk nit ñi te génnewuma sama xeet dal di ñëw fekk jahannama ma mu taxaw rek mu ne ko fuuf am kabaab mu daw ba ca gannaaw dal di taxaw mu dal di ne yàlla nañ mu dal di ñaan mu dal di toroxlul yàlla si jóot mu ne ko déedéet fii du parabab si jóot du parabab jaamu waxal rek li nga bëgg de mu ne ko sama xeet wi mu dal di nag yonent dal di ramu xeetam xeetam bi nag commencé di ramu ci yeneen xeet yëpp ba julli ñëpp di commencé di ramu wante mooy bés boobu moom la yonent wax ne ana sayyidu waladi aadama wala faxra may sang mbindeef yëpp te tiitaruwuma ko yowmal qiyaamata bis boo xamee ne nit ñëpp dañoo dotom kenn amul loo wax keroog man maay wax de te loolu du tiitar de keroog ba bés boo xamee ne sant yàlla drapeau bu ñu yëkkati sante ko yàlla keroog may tey drapeau ba te kenn du tiit te kenn du te loolu puukare wu ma ko de loolu yonent daraja moom lay feeñal ci yowmal qiyaamati bés bu jafe booba de béseb naf si naf si yonent rek dafay nekk di ramm nit ñi de Euh, bés penc nag euh, dana ñëw yàlla wax na ko ne danaa ko amal ne moo la bind man yàlla maa la bind kenn dimbalewu ma ba may bind ba ma lay bind kenn fekkewu ko bu ma lay dekkal di la delloo itam fa nga jóge woon kenn du ko fekkee mag yow rek la de te mag yow rek ñoo koy seq de te loolu yépp nit ñi dinañ jàkkaarloog moom si bés pencam yàlla هل أتاك ndax dikkal na la yow Muhammad gannaaw boo xamee ne saaru màkk moom lépp lu ko tax a jóg dana ci indi mbiram àllaaxira nettali ko nit ñi ndax tiital leen ndax ñu fàttaliku ndax ñu mën a topp yàlla ndax ñu mën a gëm yónnent yi loolu saaru màkk waxtu wu nekk dana làmboog moom de dana la wax àllaaxira ak mbiri àllaaxira ak la fay xew loolu yëpp ndax nga mën a jël sa bopp préparer sa bopp pour ne kër googu rek mooy kër ak béel de ñaari kër rek ñoo fi nekk kër goo xam ne kër ak guy guy dindeeku la muy àddina ji ñu nekk ak kër goo xam ne kër guy sax la mooy àllaaxira kër kër àddina gi mooy kër gu njëkk gi ci lañuy jaar ngir dem ca kër gu mujj ga kër gu mujj ga nag mooy kër ak teraanga wala kër ak toroxtaande kerek teranga moy aljanna julli ñi ñom la ko yalla bindal ci lañ jëm yalla nañu ci yalla boole kerek toroxtane mooy kerek safara mooy ñepp ño xamne dañ fo nekkon di wedd yalla top sen banexi bakkan dara amut lu ñu war a rek liñ bëgg ci sen bakkan rek ñu def ko lu leen sen bakkan ho rek pare nañ pour uyu ko ñooñu ñooy ñi nga xamne ño tan kerek kër gi nga xamne dafa jeex de ñi tan kerek alakhirah nak ñu ngi sàmm sàmmanteeg bés boobu nga xam ne dana ñëw ci ñoom ñu ngi ñu ngi gëm yàlla ñu ngi góor góorgóorlu lépp loo xam ne yàlla santaane na ko nen nañ ko def ñu ngi góor góorgóorlu ñu def ko lépp yàlla yàlla aaya ne buñ ko def ñu ngay góorgóorlu itam ngir daw ko bañ koo def loolu yépp mooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la yàlla préparel kër goo kër googu nga xam ne mooy kër ak taranga de mu ko defee nag yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko moo moo new ndax yow mbiram yonent yàlla Moussa xam nga ci dara ndax solo yonent yàlla Moussa xam nga ci dara hal ataaka ndax dikkal na la xadiisu Moussa solo si yonent yàlla Moussa mooy eh, isnadaahu ba ñu ooxee ko moom yonent yàlla Moussa bil waadi ca xurwa isnadaahu boo ooxee ko rabbuhu boromam bil waa yi ca quruwal muqaddasi te de suñu sellal tuwan tuwaade ba yàlla di dee rek yonent yàlla Muusa ca jabalu tuwa muy barab boo xam ne barab bu sell la ba mu koy oolum ko doon ooyee lu koy sant ne koy zëb demal ilaa Firawna jëm ci Firawna innahu naka moom taxaa aji bew la mu de yow yonent yàlla Muusa yow muusaa demal maa ngi lay yónni nga dem ci Firawna Firawna moomu ma la yónni nag ku bew la ku jéggi dayo ku jéggi dayo la bew mooy lan mooy nit koo xam ne dem nga ba jéggi dayoo ne fii ma toll nii daal man passé naa foofu man du ma nit kese kese man yàlla sax laa man ku dul man rek ci sama suuf nga war a nekk man maa war a am man maa war a moom man maa war a sangu man lañ war a màggal keneen ku dul man amul loolu su ko defee nag boo àggee ci foofu xam nga ne bon yéggi nga dayoo jéggi nga dayo ndax di nga def loo xam ne lépp lu lay alag rek moom ngay def lépp lu lay musal ci al alkare da koy xeeb doo ko bëgg su mala su ab yonent ñëwee di wax ak yow mu naan dof la sori leen dof bii noonu la noonu la ñuy jàppee yonent yi su ko defee nag waxtu woo xamee ne àgg na ci bew mooy ne bew mooy nga tànn rëy man dama rëy faale wu ma kenn sama bakkan bi moo gën bakkani nit ñëpp man maa gën kawe nit ñëpp bu ko defee nga xeeb nit ñëpp su ko defee nag lan moo fii des yàgg yàlla moo fii des su ko defee nag léegi yow yàgg yàlla la mu ne déedéet yàlla sax amut man maa yàlla na maa alimtu lakum min ilahin xayri beneen yàlla bu dul man amut man maa yàlla man ngeen war a jaamu man maa war a yëkkatiku maay seen sang su ko defee nag yàlla bàyyi ko ci wax jooju seetaan ko rek ndax gannaaw boo xamee ne dew na ba àgg foofu dara amatul ci moom lu dul àddina ak luy neex ci àddina rek topp nañ seen bànneex jox nañ seen bopp lépp lu seen bànneex laaj jox nañ ko ko jeex na ba dara desatut su ko defee nag bi ci topp mooy lan mooy tànnoon nga démb kër gi nga xam ne dafay jeex léegi nag kër gi jeex na yaa ngi ñëw ci kër gi nga xam ne mooy des la nga tànnoon ca kër googa da nga xam ne moom ngay dundee fii na nga foogoo ne yaay yëkkatiku tey ngay gis toroxtaane tey da nga torox ak torox ba nga xam ne doo em ni sanqalañ sanqalañ moo lay gën a kawe de bu ko defee nag foofu la dëgg-dëggi dëgg-dëggi liggéeyu doomu adama ci àddina di feeñ ci lay texe bokk ci ñi texe kawe ci lay suufee bokk ci ñi texe di suufee aw na képp koo xam ne bew nga nag bew mooy génn naa sama daraja génn naa sama bopp man maa ëpp nit ñi maa ëpp nit ñi rëy ku dul yow rek yow rek la yow rek ngay gis sa bopp rek ngay gis keneen ku dul yow amut su ko defee nga xeeb ñëpp boo xeebee ñëpp nag xamal ne xeebu nga xeebu goo xam ne yaa ngi foog ne da nga rëy fekk ñi nga xeeb sax ñoom ñoo la gën a xeeb de ndax teguñu la fen bu ñu lay màggal ñu ngi lay reetaan ñu ngi lay suxriya ñu ngi lay ñu lay euh, euh, mokke nga foog ne dañ lay màggal fekk dañ lay mokke loolu ku ku ku rëy noonu lay amee waaye nag su fekkee doom aadama xam na boppam xam ne dafa war a toroxlu toroxlu pour boppam toroxlu wut pour moroomi mbindéefam mais dafay toroxlul yàlla su toroxlu loo yàlla dafay dal di yaru su yaroo ci kanam yàlla rek dana yaru ci kanam mbindéef yàlla yépp dana jox mbindéef yàlla yépp seen cër su ko defee em ak ñoom nekk ak ñoom ñuy bokk seeni yéegal ka daanoo ka seeni yëngatoo ko seeni dal kenn la ci ñoom su ko defee kooku mooy nit ki nga xam ne xam na yàlla ci boppam xam na ne yàlla mooy boroom kàttan xam na ne yàlla mooy rëy ku bëgg rëy demal sukkandiku ci yàlla ku bëgg a màgg dama sukkandiku ci yàlla waaye nag bu fekkee sa bopp rek ngay sukkandikoo sa màgg googu ak sa rëy googu du dem fenn su ko defee nag boo xamee ne xam nga ne yàlla am na nga toroxlul ko toroxlul ko dëgg-dëgg toroxlu boo toroxloo yàlla rek mooy li la yàlla sant ci biir jaamam yi def nga ko ndax da nga em ak ñoom da nga leen yëg da nga nekk ak ñoom dimbalanteeg ñoom wax ak ñoom lekk ak ñoom dégluwante leen ñu ànd def ànd bàyyi ñun ñëpp ñoo ko bokk def su ko defee nag waxtu woowu yonent yàlla nee na bu boobaa yonent nee na waxtu woowu yàlla daf lay yëkkati ndax lan man tawaadaa lillahi rafaahu laa képp koo xam ne toroxlul nga yàlla yàlla dana la yëkkati loolu nu muy demee yow toroxlul nga yàlla mooy ne man jeex naa ba dara nekkatu fi yàlla rek moo fi nekk gannaaw yàlla moo fa nekk nag bon jeex na àgg nga ci kawe foo xam ne keneen mënu faa àgg de waaye nag su fekkee yaa ngi gis sa bopp man nangam laa man nangam laa man nangam laa doo dara benn nit rek nga balaa ëllëg nga dee ñu suul la nga nëb jeex na waaye nag su fekkee xam nga yàlla fi nekk nag balaa bo bo yàlla yàlla mi nga nekkat nag moom yàlla yëkkati na la rek bu la yàlla yëkkatee nag ak nga ci dayo yëkkati foo xam ne wa anna ila rabbikal muntaha da dayo booba rek moom ngay am de firawna nag dafa tànn moom beew ak yëkkatiku ci boppam moo tax yàlla wax ne inna firawna la aalin fil ardi wa innahu la minal musrifina de Firawna ku rëy la ku yëkkatiku la ku foog boppam dara la de waaye nag fu muy mujjee toroxtaane rek ci lay mujjee de foqul waxal yow Muusaa boo demee ci Firawna ne ko xël lëkka dana ma xoola ilaa anta nga jëm ci lu lay laabal ci ay bàkkaate bokkaale ak yàlla de yow yonent yàlla yow Firawna doo ñëw tegtal la yoon boo xam ne dana la musal ci sa bàkkaat yi ngay def ak bokkaale yàlla ndax nga laab ci sa bàkkaat yi moo tax ba yàlla di yónni yonent yàlla Muusa ci Firawna mu ngi ko yónni ci nit koo xam ne dafa bewa bewa bewa bew ba ne man maay yàlla beneen jàll bu ñu jaamu amul ku dul man kooku foofu la àgg ci bew bu yàlla di yónni benn jaamam ci moom bu demee dana ko jàngal noo xam ne mën na ko waxee buur bu rëy boobu ndax Firawna musul dégg ci noppam ñu naan ko defal bàyyi moom kenn du ko sant dara moom mooy def rek xanaa kaweel rek kaweel yaay sang bi yëkkatikul rek waaye defal lii waxal lii loolu firaaw na su koo dégg xamu ko bon nag boo yónnee ci moom bu ko yóon boo yónnee ci moom na nga ko jàngal ah, waxin boo xam ne bu demee firaaw na dana mën a déglu wax boobu waaye bu ñëwee di ko digal bàyyi lii defal lii musta dégg loolu xamul loolu ci dundam moom yaakaaree rek da daan dégg bon nag yàlla dina ko jàngal ne ko boo demee na nga yaru ci kanamam na nga wax ci kanamam wax boo xam ne dana ko mën a déglu isaba ila firawna innahu taxa lu nga ko ci tegal faquulaa lahu qawlan layyinan bu ngeen demee na ngeen wax ak ñoom na ngeen wax ak moom wax boo xam ne wax bu nooy la boo xam ne dina mën a dégg ci noppam de waaye bu leen dem nag di ko digal ak di ko tiital ak yooyu ndax moom xamul loolu buur la mosut a dégg loolu moo tax ba tey bi Moussa ñëwee itam noonu la waxee ak moom daf ko wax ne ndax doo nangu ma digal la woon la yoon woo xam ne dinga ci mucc ci bàkkaat yi nga xam ne ci nga nekk wa ah, wa ahdiyaka te ma tegtal la yoon ilaa rabbika wula yóbbu ci borom sa doo ñëw itam ma tegtal la yoon woo xam ne boo ci jaaree di nga mun a àgg ci sa borom fa taxsha te sabab soo sa ngeen ragal ko de boo demee ba àgg ci yàlla xam yàlla nag bu boobaa da nga ragal yàlla nga xam ne li ngay oote yépp ci sa bopp amoo ko yàlla moo ko am de Firawna dal di yëg boppam fa araahu woon ko Moussa al ayata kawteef ya al ya day aji màgg de yonent yàlla Moussa ñëw na indi na juróom-ñeenti kawteef juróom-ñeenti kawteef yooyu yépp won na ko Firawna waaye terewul Firawna bañ rek fa kazaba mu weddi yonent yàlla Moussa waa saatam mooy yàlla mu dal di weddi yonent yàlla Moussa dal mooy yàlla de su maat bara topp mu dëdd dalu koy won gannaaw de yasaa mbir mu muy aji dox fi la di ci ci suuf si di aji yàq de mu dalu koy won gannaaw dal di dem dal di dox ci kaw suuf si nag di yàq yàq ci kaw suuf doonul ne mooy da ngay yàq suuf kenn mënu ko yàq waaye nag su fekkee aji oote yàlla ñëw na di oote jëme ci yàlla képp koo xam ne yaa ngi taxaw di ko weddi rek yaa ngi yàq suuf ndax suuf lu koy dundal dëgg la yàlla moo koy dundal waaye suñ jikko yi ñun suñ bopp nag ak ñuy deflantee dina yokk àddina dund dina yokk àddina neex waaye lépp loo xam ne dafay jaar suñ diggante ak suñ bopp ba duñ xam ni ñuy war a dundee ci suñ biir ak ni ñuy dundee ci suñ suuf boobaa ñu ngi yàq suuf si de ndax ñu ngi yàq ci ñi nga xam ne ñoo war a dundal suuf si faxasara mu daje mu daje mu mu dajale moom firaw na mbooloom mbooloo xam ma ñi nga xam ne ay njabarkat lañu ak i ay lëlam ak i soldaaram fanaa daa mu xoote nag daldi oo nit ñépp ba ñépp daje ci suufam fa qaala wax ne ana man rabbukum mooy borom seen al ala ba di aji kawe de ba yonent yàlla Muusa indee defal ko defal ko kéemtaan yooyu Firawna toog gis ne yonent yàlla Muusa lii mu indi ëpp na njabar ëpp na njabar yi xam ñoom bon nag na uti yeneen pexe yoo xam ne moo ëpp pexe yonent yàlla Muusaa yi de yonent yàlla ngi nii taxaw di wax ne yàlla ma yónni nga ne dajale nit ñi ne leen waxoon na ne maa alimtu lakum min ilahin gayri waxoon na loolu xamaluma leen benn yàlla boo xam ne bu man man rek maay seen yàlla de nit ñi nangu ko nangu ko ne Firawna mooy seen yàlla di ko jaamu ba ko defee nag ba mu demee ba yonent yàlla Moussa ñëwee di wax ak moom ci jeneen yàlla yoo xam ne du moom mu ne su fekkee jeneen yàlla ju dut moom itam am na moom moo yàlla ji gën a kawe de bon moom moo gën a kawe yàlla ci boppam loolu moom foofu la beewam ak gonde